ay la yowén li nga xam ni wax na ko ñëpp dégg nañu son Sonko plusieurs fois mu ne procès bi la yàkkamti ñu dem ci hmm. procès bi ñëw kenn gisu ko ci ndax loolu bokkul ci li nga xam ni day jox dëgg ñi jàpp ni euh, lu ñu ko tuumaal moom la ndax koo xam ni am nga occasion indi ay leeral ci li ñu lay tuumaal ci àdduna ci sa ay bëti soppe ci sa ay noppi soppe ak même sa ay noon nga euh, rendez-vous boobu nga manqué ko est-ce que lu ñu la jiiñ du yow yaa ko def ndax loolu itam bokkul ci li nga xam ni moo indi fitna gi nga ñu ngi koy dund tey ñàkk a teewam tribunal. xam nga papa ngañ man dama jàpp ni débat bi. ñun mhm. fiñ fiñ nekk ni mhm. débat bi daf ko dépassé. Mhm. ndax sa procès bi peuple bi àtte na ko. peuple bi àtte woon na ko mois de mars. te biñ ko yëngalaatee peuple bi àttewaat na ko. kon loolu ci ku conscient loolu warul nekk débat bi. man jàpp naa tey li ñu war a débattre nan la ñuy fexee ba génn ci guute gi réew réew mi dugg. loolu mooy mais mais mais sëñ bi yow yaa ngi contradictoire de. parce que yow boo nee mënuñu wax mënuñu ko régler te waxuñu cause bi. nga bëgg génnaat ci loolu nga bëgg dem ci conséquence bi. non wax loo xam ne yow wax nga ñu ko ba ñu ne nañ dem ci loolu nga ne noonu nañ jógee foofu nañ dem feneen. xam nga li muy wax nii dafa bari ah, mais li ma wax nañ ci d'accord ci loolu aussi s'il vous plaît. mënoo ma wax ni ma nañu jàngat cause bi ba pare nga ne mënoon nañ jógee ci cause bi nañ dem ci conséquence yi. papa nga waaw dafa am lu ëpp doole. ok mooy justice populaire. boo xamee réew mu mel ni Sénégal xaw ma nag kuy coow nii di coow mais ku xam réew mi xam démbi réew mi nga xam ni réew mi dañoo teel a jàng loo mën a wax Sénégal depuis 1603 ay université ngi fi Sénégal tubaab bi bi mu fiy ñëw sax lu jiitu république di fi ñëw ay université lañ fi fekk nit ñu jàng mhm. nekk peuple bu mature peuple boo xam ni kenn mënu su leen a mën a manipuler du ci seen diine du ci seen aada kon bu peuple bi taxawee xamal ni peuple bi taxaw xam na li tax mu taxaw moo tax dama wax ni man tey sama responsabilité dafa dépassé Ousmane lii xew na man xam nga tey lan mooy sama responsabilité foofu nga commencé. waaw dama naa la ko xam nga lii. da yow ñaari at yàlla nit ñaa ngi ciy. waaw Papa Gueye non cest dafa mel ni li li li monsieur le maire wax da nga ci amul ay yu leer moo tax nga bëgg a jaxase jaxase wu ma Papa déglu rek xam nga Ousmane Sonko toog na musul wuyu ji justice c'est-à-dire yow li nga mu wax yëpp tontu la ci li nga wax la après yow nga jot nga jot tontu bi nga ni noonu ci génn nañ dem ci boo ma dégloo rek mhm. ko man li tax ma tey ma jël position ni ànd ak Ousmane Sonko njëkkewu ma woon position bi man bi mbir mi amee damaa bokkoon ci ñi doon observer bi ma toogee à distance di observer yor sama xel di xalaat dem ba xam ne lii complot la ma ni man duma seetaan complot loolu bokk na ci li ma dugal Pastef mhm. mais man mbir mi bu doxoon ni mu war a doxee rek mhm. damay bokk ci fii nga toog nii lay toog di observer mhm. waaye ñun ni ñu yàlla bindee ak sunu aada ak diine ji nga xam ni moom la ñuy jéem a royo royo kus néew sunu deret moo mënta muñ complot man duma so dossier bi toog naan Ousmane Sonko wuyu jiwul yëpp sénégalais yi la Ousmane Sonko naka jekk bi dossier bi amee dafa musa wax ni moom day wuyu ci na yoon nañ bàyyi yoon doxal liggéeyam. Mm-hmm. waaye dossier boo xam ne warut a génn gendarmerie nga fexe ba génne ko gendarmerie yaa ngi dégg fexe ba bëgg a jël as gor teg ko ci koo xam ne nii moom moo taxaw avoué ci kanamu juge nangu ni fenkat la. loolu mooy dëgg. parce que fen mooy kuy wax muy dëñ. yaa ngi dégg moom moo ko wax audio yi bi mu fiitee fii senegal yëpp dégg ko ñu laaj ko mu ni man dama doon foo mais am réew dinga foo ba ba ba ba ba rey fukki nit ak juróom-benn ci réew mu ñuy wax ni justice dafa am gis nga dossier bi peuple bi àtte na ko ba noppi man li ma gëm mooy. dossier politique la te reponse politique la ci Pastef wane donte li ci am dafa amul benn nit laax bu conscient boo xam ne ni tey amoo kersa ci li am ci Sénégal loolu nangu nañ ko mais ñi nga xam ni ñooy responsable yi mooy ñi ñi bëggoon a jël ab dossier boo xam ni dafa yem ci ñaari nit ci liñ wax bëgg ci profité pour rendi sa adversaire politique parce que def nga say sondage ba mu leer lanu yow kii nga ko seqal boo demee moom élection mu gañe le premier tour loolu mooy dëgg bu doon dafa tàmbalee ci Ousmane Sonko ñu mën a wax xalifa Ababacar sàll ñoom ñoo xëy ni mënta nekk candidat te seen wujj la woon tey ñu ngi defi pexe pour boole ko. Karim Wade ñoo xëy ni dafa sàcc alalu réew mi xëy exile ko génn ko réew mi ñu ngi defi pexe pour boole ko tey amul benn sénégalais bu conscient boo xam ni nangu woon ni suñ justice bi am na problème ci ku moom sa bopp laa wax malheureusement nag ñi koy wax ñëpp ñu ngi leen di xoqatal di leen tiital loolu moo indi situation bi. Papa Ngagne man dama rus a fen wala may wax lu ma gëmul barke Cheikhou Tidiane man ko xam fa ma jóge xam ni rus Ousmane Sonko su ma jàppoon ni lii ñu koy tuumaal daraa ngi ci rus naa koo défendre mais billahi lazi laa ilaha illa hu damaa gëm ni complot la loolu laa gëm néewuma keneen doo gëm leneen te man mi koy wax dañuy waxtaan rek ñun jàng nañ droit bu baax charia mhm. ba ci njaalo boo koy jiiñ nit dangaa war a indi ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge ñeenti seede yoo xam ne bokkuñu fu ñu jóge ñett doyul ñaar doyul. mais moom moo ci war a jiitu mais moom moo ci a jiitu. ma daaneel c'est important li may wax ah, mais moom moo ci war a jiitu pour setal boppam aussi. mais Ousmane Sonko lim teglu rek damay wax rek. Mhm. comme dañuy wax rek ñu wax li nga xam ne moom waxi yàlla la. Mhm. mooy justice divine. nga xam ne moo dee réew mi ku fi dul katolik ab jullit nga. nit bala moo boo ko jiiñee njaalo yow mi ko jiiñ njaalo dangaa war a am ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge aji saar benn seede amu ko benn certificat médical bi nga xam ni ki ko def musta xam Ousmane Sonko musu ko gis mu ni certificat médical bi li mu wane mooy rapport amul kon dossier boobu bu dee ci réew mu sérieux lañ nekk te bëgg a doxal justice warul woon a dem tribunal malgré bi mu demee tribunal Ousmane Sonko dañu woon dey wuyu ci bu jógee di wuyu ji ñu kar ko di ko dóori lacrymogène mm-hmm. loolu mooy dëgg. kon man dossier boobu indiw ma fi tey. dossier boobu ñi conscient ci réew mi xam nañ ay caaxaan lay woon te peuple bi wan na leen ne ay caaxaan la te peuple Sénégal du peuple bu ñuy fowee. kon man loolu sama ginnaaw la nekk. man tey maa ngi wax ñi caaxaan ba dugal réew mi ci guute gi nan lañ leen di dimbalee ñoom bañ génn réew mi ci guute gi. loolu mooy débat bi man loolu moo ma fi indi. yaa ngi dégg mais waxi. waxi waxi Adji Sarr ak Ousmane Sonko yow nan ngay tuumaale nit viol nga ni viol amul menace de mort amul te ki ko tuumaal lépp lu mu wax mu dëñ nga bàyyi ko mu ñibbi këram xëy ki nga xam ni moom lañ tuumaal nga ni danga koy tëj ñaari ati kaso papa nga dafa am loo xam ni du jarul jàng droit xel la laaj. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais jàng jàng droit aussi baax na ci à ah, droit la ñuy attewoo. xel xel c'est important dégg la bon sens. waaw mais nag ci ci li ñuy atte aussi ci ay charte la koy teg. c'est important yi ma lay wax. Mm-hmm. Sénégalais yi bu ñu gëmoon ni Ousmane Sonko dafa laal dara ci mbir mi bu wootee yow xam nga peuple sénégalais Ousmane Sonko moomu leen. billaahi loolu laa gëm. tey ñi taxaw gëm ni Ousmane Sonko. non man dégg naa ñu ne même bu ci laalee suñu yoon nekku ci. moom la ñu ah, dégg naa loolu ah. même bu ci laa dégg naa sax lu gën a garaaw te justice moo wane ni laalu ci. ok lii muy wax nii c'est des manipulations ñun gëmuñu ko. justice ab juge moo taxaw ni asmaan Sonko violé wul. deful menace de te loolu ngeen ko doon topp. leneen li ngeen ci yokk yéen ko ci yokk engagé ñu gëmuñu ko bu leen neexee nag comme li ngeen xewal ku yëngu ngeen jàpp ku yëbbu ngeen tëj tëj leen réew mi yëpp mënu leen a fexe bañ gëm ni Ousmane Sonko dafa violé wala dafa def menace de mort lii moom bu ngeen jëloon paaka teg ko suñ puti duñ ko gëm parce que convaincre leen ñu. il faut ñu respectante ñun jàng nañ lan mooy justice yeneen bi moo ñu jàngal justice ñun kenn du ñu kenn du ñu jàngal yonent bi bi jàngalee justice moo ñu wax lan mooy justice. sallallahu alayhi wa ñaata nit ñoo bokk tey APR taxaw ni nañ rey Ousmane Sonko toog seen kër ngeen ñi wax waxi justice nañ nañ respectante nañ jéem a fexe nan la ñuy génnee réew mi ci guute gii mu dugg loolu mooy débat bi tey mais débat wu Adji Sarr Ousmane Sonko du débat moo frère yaa ngi dégg. peuple bi ngeen nekk il faut ngeen xam leen. mënoo jiite am réew te xamoo démbi réew mi réew mi képp kuñ fi musal jaay doole héros nga mujj nekk il faut ngeen xam loolu. réew mi fii du réew mu ndaw mënuñu laa dénk réew mu mel ni Sénégal ay révolution yu mag am fi la révolution torodo fii la amee yaa ngi dégg ay héros yu mag am fi. d'accord ngeen bëgg a jël am réew di ko di di di di. tënk nit ñi parce que da ngeen a yor doole état doole ji ngeen yor moomu leen quoi doole état ngeen yor Ousmane Tanor Dieng mi xamoon état danaan wax ni doole état xajul ci nit. d'accord police bi ak gendarmerie bi président de la république avec respect bi ma ko jox yëpp moomu ko police nationale la gendarmerie nationale tey gor ñëpp ñu ngi ci kaso yi. parce que d' accord ak Macky Sall. d' accord merci beaucoup man mii di wax ak yow mën naa génn léegi ñu jàpp ma wala ñu dóor may mënoot. mais dinañ ma jàpp ci ngor ak ci dignité ñëw leen ñu waxtaane réew mi ñu indi justice ñun jàng nañ lan mooy justice lii du justice d'accord bu ñu leeroon ni justice la billaahi wallaahi tallaahi duñ ci ànd d'accord alors